match bi dafa nekkoon match boo xam ne du match Sénégal la match Afrique la ñun Afrique lañ doon footballal ndax dañu nekk boo cinq équipes yoo xam ne boo ci Afrique ñu doog ñeent ñëpp mu des Sénégal ñëpp yaakaar ci ñun kon ñun tey li ñu war mooy indi indi indi loo xam ne bon nañ ko teg ba nga xam ne ñoom dinañ ci Afrique dinañ ci mën a kontaan vraiment victoire bi bon ñu ngi félicité Alioune Alioune Cissé di kontaan ci moom di ko ñaanal yàlla. bon fi nga xam ne fa la bëgg a yóbbu équipe bi yàlla jàppale ko ba mu gën a ah, jëme ko foo xam ne dina weesu njoktam. ma ci Sénégal bi lii la demee rek parce que eh, en coupe du monde cinq cinq équipes africaines ñoo dem bu ñoo nekkoon dernière bi ñëpp am nañ defet moo tax tey yàlla suturaal nañu may nañu ndam waaw tey Sénégal moo doon représenté moo doon représenté Afrique tey nii rek la mënoon demee ndam rek moo ñu jig nii rek la mënoon demee quoi demee. instant émotion bi moo ñu jàpp ba instant mënuñu wax. kontaan nañ techniquement bon match bi xale yi dañu ñëw bon wane jom wane fulla wane na bon football la bal bi kenn moomu ko bon ñu leen ci côté yëpp tëj couloir yi bon yow bal bi di football comme ñoom sans complex waaw yàlla may ñu benn bi ñu yore bi ñu dem ak ñoom avant ñu mi temps dugal deuxième bi bon vraiment. Euh, suñu xol dafa sedd daal kontaan nañu lool daal ci victoire bi. joué nañ match bu baax booy xool suñu match ak courage yi dafa mel ni moo ñëwaat tey parce que match bi ñu joué ak courage yi ñëpp tey kenn amul loo wax ba tey man li may gën a wax na mooy tactique bi surtout surtout côté tactique bi ñu joué dafa am solo trop trop trop trop parce que booy xool moo gagné match bi parce que en nañ ko engagement fula ak fayda ak ba jeex tàkk man li ma siy dolli ba tey tey seen tey tey bu 11 départ yi di génne amuñu woon yaakaar si Aliou Cissé ko wax mun la aayul xamul 11 11 am bu yàgg la koy génne mais yaakaar naa lii moo gënoon Sénégalais ni ñu ni ñu bootoo nii topp si ginnaaw équipe bi yaakaar naa nañ nañ continuer topp di man li ma ciy gën a dolli mooy ñu wàññi débat yi tuuti parce que télé boo gis léegi wala rajo boo gis ku nekk Sénégal yëpp ay entraîneur lañ ku nekk day toog di wax critiquer entraîneur Aliou Cissé nii Aliou Cissé nii tollootuñu foofu. parce que Sénégal tey cinq équipes moo dem benn benn entraîneur africain moo si am muy Aliou kon ñëpp war nañ mën a topp si ginnaawam yu dolli ko ñaan parce que tey fi mu yóbbu nii ak bi en tant que joueur ancien joueur 2002 mu ne woon capitaine équipe nationale Sénégal kon tey yàlla dogal mu indi équipe bi yóbbu ko coupe du monde kon sénégalais yëpp war nañ mën a topp si ginnaawam dolli ko ñaan parce que ñu wàññi critique tuuti bu waroon def nii bu defee lii tey li mu indi kenn amul lu mu ci wax. Aliou Cissé dañ koy ñaax rek ne ko seen affaire bi du moom Sénégal gi yëpp ñu si ginnaawam Sénégal gi yëpp ñu ngi si ginnaaw Aliou Cissé incha ndam rek ndam rek lay doon incha allah. Aliou Cissé lu nekk wax nañ ko ko que critiqué critiqué nañ ko wax ko lu ne. bon ndax xamul dara Aliou Cissé cuune la Aliou Cissé lii la mais lépp yàlla may na ko mu ànd ak concentration am ànd ak fulam ak faydam di def liggéeyam bañ a faale kenn tey loolu la ko yàlla fay tey ndax moom xam na li mu bëgg te xam na bon fi mu Sénégal fan la. kon ñun duñ ko lu ñuy def rek lu ñaanal ko rek bon équipe bi fi nga xam ne fa la ko jëmee bon yàlla may ko mu gën a sori ba ñu mën a dem sax ba demi fa la finale pourquoi pas finale. deuxième match bi ñu ñëw sax moo lañ am dañuy liwaat la ñuy indi dem dal ci kawam bu ñu mënul bu ñu dem ñu taxaw samp nii loolu si soxla soxla wu ñu si critique soxla wu ñu dara nañu dimbali rek ak critique bi dañu bàyyi équipe bi mu dem nii parce que critique mu dugg day yàq diw moo waroon def nii diw moo waroon fuma diw moo waroon fuma onze si muy indi wala vingt trois yi mu yóbbu ku nekk ku équipe bi moo amul titulaire indi tey mun na dem kon place moromam kon équipe bi dem na tey yàlla dimbali ñu ñu jël trois points bi nañ ñaan yàlla équipe bi mu continuer tegu si yoon